la liberté de la presse alors ñu gis ne sànq jël nga fi parole nga wax ne presse bi li presse en ligne bi président Macky Sall li mu wax ne daf ko bëgg réguler kii yëpp naka nga koy gisee alors euh, xam nga le président def na day réguler les médias sociaux alors parfois si ñu koy conseiller wala sénégalais lambda daal du comprendre lan mooy médias sociaux ak lan mooy presse en ligne parce que dañuy jàpp ne médias sociaux moom a presse en ligne benn la te li ñuy fàtte mooy eh, presse en ligne bi day utiliser média sociaux yi pour mën a promouvoir pour gën a mën a fësal xibaar yi nga xamante ni moom la ñuy traité de façon très professionnelle e respecte également li nga xamante ni moom mooy règle journaliste yëpp euh, journalistique yëpp alors mais eh, li nga xamante ni moom moo am solo te xaw a contradictoire ci boo ko déggee muy wax loolu mooy fan yëpp bay def ay from ne dañuy créer ay emploi jox ndaw yi xëy tey ñun ñëpp ñu xam ne ndaw yi lu ci ëpp ci li ñu tàggatu mooy nouvelle technologie bi mooy ñi nga xamante ni tey secteur bi ñu mën a liggéey mooy secteur numérique bi et que tey secteur numérique suñu koy wax li nga xamante ni moom mooy peser quatre-vingts pour cent wu développement euh, économie numérique au Sénégal c'est la presse en ligne alors presse boobu ma jàpp ne lu ñu war a gën a jox gëdd la lu ñu war a gën a xam rôle la gën koo encadrer gën a former ñi nga xamante ni ñoom ñoo si nekk parce que secteur la bu nga xamante ni day évoluer chaque jour ñu gis lu bees bu nga xamante ni moo ngi ñëw ci secteur boobu ak ñu nekk ci euh, su secteur boobu de la presse ñoom la ñuy soxla xam naka la ñuy xarañee ba li ñuy def ñu gën a mën ci continuer waaw du ñooñu la soxla tàggat ma jàpp ne bu fekkee ni Euh, tey jii dañuy wax mais dañu nekk ci moom boo nga xamee nit ki dafa war a am liberté parce que loolu si suñu charte fondamentale u réew mi si la ñu ko bind kenn ku si nekk am na droit exprimer wu su ko ko soxlawee et que kenn ku si nekk également dafa war a joxe xalaatam ci dëkk bi nu muy demee ma jàpp ne rôle bi nga xamante ni moom la presse en ligne bi di euh, liggéey ci loolu amul beneen presse bu nga xamante ni tey mu ngi koy liggéey mais presse boobu noonu waruñu def lu dul jox ko gëdëm jox ko cëram encadré ko accompagner ko ngir mu mën a gën a mën a def liggéeyam na mu gën a waree beneen bi ci topp mooy tey dañu diaboliser la presse en ligne ba tey boo génnee ne journaliste nga rek wax ne si site web ngay euh, liggéeyee du ñu la jox gëdd bi ñu la waroon jox alors que yow la waroon gën a jox gëdd ndax da nga ci ñi nga xamante ni dañuy participer ci démocratie wu réew mi yow yaay jox information ñi nga xam ne ñu ngi ci réew mi ak ñi nga xamante ni nekkuñu si biir réew mi et en temps réel et que loolu également day des à bokkul euh, Euh, da nga koy gis tey mu jàll wala benn fraction de seconde boo ko gisu dootoo si ñëwaat et que gis nga image boobu ñuy bàyyi sur euh, euh, la toile à chaque fois bu nit ñi di xool wala bëgg a ñëw investir au pays te loolu la ñuy xool lan moo xew Sénégal naka la Sénégalais yi di dundee et cetera et cetera alors donc rôle boobu nga xamante ni aujourd'hui la presse en ligne mu ngi koy liggéey dama jàpp ne autorité yi dañ ko war a gën a jox doole war ko gën a encadrer gën ko jox gëdd ba xamante ni ñuy ci presse en ligne bi dinañ bopp bu baax ñu fexe ba nga xamante ni ñu am ay organe de presse en ligne yu nga xam ne dañuy eh, am doole yu foor yu leen di permettre ñu gën a yokk seen emploi di gën di nag di fay seen i employé comme na mu waree ndax ki nga xamante ni moom mooy liggéey ci presse en ligne mu man di gis boppam bu baax. te eh, ñaari kàddu la mooy mbooloo mbooloo mooy solidarité mooy liberté maanaam féex mbooloo parce que dañu gëjoon a gis lu mel nii maanaam journaliste technicien yi photographie caméraman yi ñëpp ñëw dajaloo dóorandoo xàccandoo dóorandoo dañ ko gëj a gis depuis 2017 donc déjà loolu def nañu succès bu baax la et il ñu def ko ndax diggante boobu ak léegi comme ni ñun journalistes yi ñun problème gars yi rek nañuy wax duñu wax mukk suñu problème dañuy dem ba mujj gi bu ñu wax si suñu problème dañuy fàtte donc loolu moo nekkoon premier liberté mooy li nga xamante ne moo wundul journée bi tey te jox réew bi nga xamante ne tey c'est les ay référence nañ ci wàllum démocratie tey boo fa demee dañu organiser quand même ay manifestations wane seen seen mu dem toog xam ne moo keneen la yem donc loolu mooy ñaari tënk yi nga xamante ne mën na ko ci tënk euh, du tax du tere nag ñu laxas si si ginnaaw ay laaj ak i ak i ak i ak yëf yoo xamante ne jàpp nañ ni ñun média wu Sénégal dañu ko war a dañu présence naturelle la sunu corporation moo nekk en cause euh, mu nekk bés boo xamante ni aussi bésu hommage la en même temps rendre hommage ñi nga xam ne ñoom ñooy les précurseurs les francs-tireurs mooy ñi nga xamante ni ñoo tax tey ji xëy na métier bi avancé yi ci am am ci parce que xëyul rek tab bi c'était un travail de longue haleine parce que au départ parti unique moo fi nekkoon benn média rek moo fi nekkoon média d'état ñu dem ba ci biir affaire bi pluralisme am ñu commencé tijji loolu dama impliqué leneen lu bëree bëri li muy impliqué nag mooy enjeu bi tey mooy nan la ñuy def ba ku fi ku fi ku fi ku fi ku fi nekk journaliste Sénégal mën a jëflante ci wàllu xam-xam ci wàllu nekkin. si wàllu dignité tout court ak sa naataango ba nekk Maroc sa naataango ba nekk Canada sa naataango ba nekk États-Unis sa naataango ba nekk France donc loolu mooy yëkkatiku bi donc la formation mais surtout toppatoo bi nga xamante moom la ñu une fois ñu nekk sur le terrain je pense que ça c'est extrêmement important qu'il faut pas négliger waruñu ko négliger lu ñu war a bàyyi xel la parce que métier la boo xamante ni aussi rapidement nga livrer say vulnérabilité waaw ah, parce que métier la boo xam dañ la war a ñàkk je pense que dañu soxla garde fou dañu soxla ñàkk et il faut pas le négliger bëri na on a d'excellents journalistes on a d'excellents technicien de l'information et des communications le monde des médias c'est un monde magnifique boo xamante ni ñu bëri ils ont envie d'accompagner le processus développement du Sénégal donc faut que ñu bàyyi leen xel nag au les autres acteurs yi nga xamante ni ñoom lañ bokkal espace public. les jeunes reporters seen seen condition de travail dañ koy ñaawlu. ah mat na ko jar naa ñaawlu cest à a galéré presque rares sont les reporters qui à moi-même qui vous parle pendant longtemps j'ai fait du bénévolat j'ai travaillé mais loolu aussi c'est-à-dire que il faut aussi qu'on arrive à trouver une intelligence sociale entre l'entreprise et l'école nga xamante ni xale nga am su ñëwee duñ koy obligé di ko ramloo pour mu jàngaat parce que d'habitude loolu mooy nekk alibi bi dañ naan la non tu es venu sans métier il faut que ñu nga temps accommodé wu acclimaté wu ak non il faut que ñu trouver une intelligence ba nga xamante ni bu nit ki di def première année dina mën a am 60 pour cent de théorie 40 pour cent de pratique en deuxième année mu am 40 pour cent de de de de théorie 60 pour cent de pratique et en troisième année qu'on puisse le mettre dans les conditions optimales d'une rédaction nga xamante les responsabilités sont partagées naturellement médias yi ñi ko yor c'est des hommes d'affaires aussi ils veulent le profit c'est des chasseurs de primes xaalis la ñu bëgg donc d'un côté mais pour man aussi j'interpelle le législateur il faut que le législateur aussi mooy yoon yi mu def mu dëppale ko ak jamono su ko dëppalee jamono ba pare mu saytu ko donc l'encadrement aussi de la loi par rapport à la loi et j'interpelle aussi l'inspection du travail pour que mu mën a bàyyi xel ñi nga xamante ni aussi ñu am leen parce que bëri na tey ay jeunes reporters yoo xamante ni qui vivent une galère extraordinaire dans les médias loolu warul am boo bëggee journaliste bi def liggéeyam dëgg warul nekk di def euh, kii donc y a y a plusieurs formes de violence dans les médias. est-ce que yomb na dina ko mën def. il faut mettre autour de la table tous les acteurs tous les acteurs parce que sunu développement euh, si wàllu médias sociaux. dafa jiitu législateur bi donc le législateur doit faire aussi un des pas en avant pour mën a ñu mën ko encadrer mais que tous les acteurs puissent discuter pour trouver des solutions moi je plaide beaucoup plus en faveur de ça d'une euh, que tous les acteurs soient autour d'une table discuter pour trouver waaw concertation qui est qui est différente nag euh, les concertations c'est pas forcément dialogue ñun souvent dañ koy jaawale Moi, je plaide beaucoup plus pour des concertations. Il ne s'agit pas seulement journaliste, il s'agit des caméramans, il s'agit des techniciens, il s'agit des gens de la logistique. li ñu remarqué moo ne ay contrat yu bon la ñuy signal nit ñi contrat bu nga xam ne du passé sax euh, buntu entreprise bi ba saa neexee dàq nit ki doo ko jox àqam doo ko jox fiyellee fam stagiaires yi nekk ci rédaction yi dañ leen di liggéeyloo comme ay mbaam pass bu la boo ñibbee sax doo ko jot loolu aussi war nañ ko xoolaat bu am au citron jël la sànni si mbalit bi du ñu que ça ça doit euh, la convention collective est là pour régler le problème de patrons de presse dañuy jël loolu teg ko ci suuf du ñu respecter ak ak yelleefu journalistes yi je pense que loolu moom la ñu njëkk régler beneen bi ci des journalistes yi fu ñu war a ñu ne leen doo wut syndicat am na patron de presse nga xam ne boo fa naree taxawal syndicat syndicat ñu dàq la ci biti te pourtant c' droit bu nga xam ne euh, dañ ko reconnaître donc loolu yëpp ay sooxe la yu ñu war a xoolaat patron de presse bu nga xam ne da jël aide à la presse def ci sa poche say employé di torox nga amal leen ay arriéré de salaire wala di am ay retard de salaire loolu war nañ ko xoolaat patron yi seen poche lañ fi nekkal mais nekkaluñ fi journaliste yi donc nañu xoolaat bu baax ñoom seen taxawaay parce que euh, bu leen ci biti nañu xoolaat bu baax seen taxawaay parce que ñoom balaa ñuy nekk ci nguur dañu nekkoon ci opposition doon tagg presse bi ba tey ñu wéet nekk euh, au pouvoir bëgg a xarab presse bi barki Dembo Ndiaye ñu dagg ay signalu seen TV dagg signalu Walf ndax lan ñu ngi def seen liggéey loolu teguñu ko ci yoon beneen bi ci des gis nañu également ci wàllu opposition bi ba waxee nu nga xam ne arrangé wu leen ñu ñu bund xatal la ñu sëkkatal la ñu saaga la di leen menacé loolu teguñu ko ci yoon beneen bi ci des Dembo la ñu lakk le soleil fan lañ ko teg barki Dembo Ndiaye la ñu lakk TFM euh, euh, lakk alalu journaliste bu nga xam ne da ko liggéey ñàkk ko ñu lakk otoom est-ce que loolu teg nañ ko ci yoon c'est pas normal barki Dembo Ndiaye bi ñuy manifester ñu dégg préfet mu ne dóor leen lacrymogène ba ci journaliste yi ñu gis caméraman bu bu ñu damm mu gis ñu nga xamante ni noyyi nañu ay grenades lacrymogènes te pourtant dañu doon def rek seen liggéey donc il faut que nit ñi respecté ñu d' abord loolu je pense que muy état muy opposition ku ci nekk am nga role bu nga xam ne war nga ko jouer pour jox euh, presse bi seen ak ak seen yelleef askan bi bu ñu réere mbir ñun suñu liggéey la ñu def ànd ñoo ak Masamba ànd ñoo ak Mademba suñu liggéey la ñu àndal suñu micro la ñu àndal nañu jox cër te xam ne ci askan bi la ñu jógee bu ñu paree suñu liggéey ci askan bi la ñuy delluwaat mbokk journalistes yi si journée internationale de la presse bi ñëw euh, jëmal bési beneen dama ñëw en tant que un ex employé de la CNTV boo xamante ne suñu eh, RS dañoo dàq abusivement waaw abusivement teg ko teg ci benn ci benn sart teg ko teg ko ci benn loi waaw dañoo xëy benn jour samedi rek euh, dañoo xëy benn jour samedi samedi samedi premier premier mars dañ xëy ñu xaw a tardé benn benn légère de cinq minutes tardé wuñu sax yoo xamante ne sax bu ñu ñëwee suuf la ñu toog ñu benn message suñu groupe euh, planning ne carrément am na caméraman yoo xam ne ñëwuñu te caméraman yëpp yëpp ñëwoon quoi parce que d'ailleurs sax sax jour boobu noonu ba ñuy dàq jour boobu noonu def nañ reportage def nañ am na ñoom def nañ fa 9 ans am na ñoom def nañ fa 9 ans amuñu amuñu 2013 lañ fa def ba 2017 ñu leen doon defal contrat xam nga loolu c'est pas normal man mi di wax ak yow en personne man mi di wax ak yow def naa fa 6 ans amu contrat amu prestataire dañuy wax prestataire man prestataire boo xam ne gisoo ko prestataire boo xam ne gisoo ko amul amul man ma jàppee prestataire dañ ma jàppee prestataire dañ ma jàppee prestataire boo xamante ne musuma gis contrat musuma gis prestataire boo xam ne man naa signé en tout cas moo rey moo weer dee ñu ko dem xaalis jox ma man ma def sama loolu daal la sëkk ak man boo feebaree waaye xëy na moom ñoom bu fe boo feebaree boo feebaree ñoom seen yéen nga xëy si. waaw da nga jàpp am na ci boîte yi. waaye am hôtel xam la am nag fenn kese laa ko am muy seen dibi fa laa nekkoon man foofu laa mën a mën a wax. hôtel bi am seen dibi da am te loolu bu nga ngay moo no li ñu bëgg mooy maanaam nga état bi ñëw carrément def li nga nga xamante ne mooy mooy mooy mooy maison de la presse yi bépp koo nga télé wala nga yor nga site internet ñu xool ndax ñii am nañ contrat wala amuñu contrat ñii am nañ ay prestataire wala amuñu prestataire parce que tey mënoo nekk benn boîte pendant neuf ans amoo amoo amoo contrat jàppale prestataire ba lan on se dit dañuy loolu teg ñoo fenn dañuy interpeller le de la république ak ñu def ak ministre du travail ñu def audit si yenn yenn yenn yenn télé yi ñu xool ñu am contrat ñu am contrat ñu am contrat ñu régal ñu régulariser ñu noonu lañ bëgg. waaleykum salaam waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu maa ngi tudd Serigne Mansour Cissé di journaliste di liggéeyal Le Soleil voilà. Mansour Cissé tey ñu gis li nga xamante ne tey mooy képp koo xamante ne tey presse mu Sénégal ñu dajale fi nga xamante ne tey ñëw def benn tey lu ci waaw d'abord dama am mbégte mais en même temps am mbetteel parce que ñi nga xamante ne ñooy revendiquer le titre de journaliste di yeewoo ci réew mi ñooñu bu ñu ñëwoon fii kenn du fi xaj donc mobilisation bi waroon naa gën a yaatu lii ndax Sénégal li fi nekk ci ay journaliste ëpp na lii fuuf damay faral di wax ne bés yëpp bu ñu tolloo woon kon fàttaliku du am parce que bés bu nekk yàlla def na ci loo xamante ne def ko ci beneen bés rawatina nag bu ñu ñëwee ci li ñuy tuddee journalisme xam nga journalisme métier de liberté la. journalisme métier de liberté la mënoo koo def sans liberté démocratie pratique de liberté la donc ñoom ñaar ñooy ànd mooy li alxuraan di wax ne lu ne. yàlla nee na double exemple laa ci def beneen bi journalisme dans la sourate les appartements yàlla moo ne ni ñu koy defee da nga mooy da ngay dem ci source bi loolu li ñu ciy déggee mooy liberté ak responsabilité ñoo bokk ndey ak baay beneen bi aussi mooy Sénégal am na liberté mais temps yi le journalisme en tant que tel pratique bi dañ ko sayute parce que boo xoolee euh, en mars 2021 li fi xew loolu dëgg du yoon ay locaux de journalistes yu gars yi attaqué ay auto journalistes yu ñu taal yaa ngi dégg ay journalistes yu ñuy menacé te liberté moom boo ko génnee ci journalisme journalisme amatul te dañuy faral di wax même si c'est pas constitutionnalisé bon à travers l'article 8 de la constitution on parle de liberté mais le pouvoir du journalisme le journal le pouvoir de la, de la pratique de journaliste kenn constitutionnalisé alors qu'on parle de quatrième pouvoir l'un à l'autre moo xam pouvoir la moo xam du pouvoir mais war nañu fexe ba nga xamante ne bii la pratique du journaliste mu ànd ak liberté. maaleykum salaam. yéen góor. waaw contentement ndax lii nii dañ ko yéex a def parce que techniciens yi sonn nañ trop ci organe de presse yi xamuñu seen gët xamuñu ñun ñooy kan te képp ku fi siiw tey wala képp koo xamante ne tey ñu ngi lay ràññee ci dëkk bi grâce aux techniciens dañ ñu war a jox suñu gëdd war a jox ñu wax war a xam ñun ñooy kan patron de presse sonal nañ techniciens yi sonal nañ patron de presse sonal nañ techniciens yi techniciens yi dañuy liggéey amuñu heure de wàcc amuñu heure buñ xëyee fajar guddi ngay wàcc amoo vie de famille amoo dara te salaire ñoo fay njëkk ñoo fay mujjee te joxuñu benn gëdd loolu nag lañu lii nii dañ koy yéex a def lii moom kontaan nañ ci bu baax di wax na nag technicien yëpp yëpp koo xamante ne yaa ngi organe presse dañu war a booloo mbooloo mooy doole lii ngi def nii buñ ko continuer incha allah gis naa ne dinañ ci am ndab bu baax lan ngay wax si nga xam ne yéen a pàcc ak président am nañu dix ans duñu am empoisement duñu am li nga xam ne mooy contrôle. li ñuy naqarlu la parce que ku def six mois trois mois kese doy na ci stage waaye da nga fay toog un an ba deux ans ba trois ans kenn du la embauché du dëgg du yoon loolu du dëgg du yoon parce que liggéey bi dafa metti doo am vie de doo am dara dañu war a liggéeyante six mois boo ko defee war nañ laa defal sa CDI mais duñ ko def stage gudd du stage bëccëg da ngay stage stage bay bëgg a dee lii moom dañ ci war a wax te lii état bi war na cee wax parce que techniciens yi sonn nañ torop c'est-à-dire en tant que yow en tant que yow technicien tamit maam jafe-jafe yi jàkkoonte na jafe-jafe yi ñi gën a metti la mooy ñi nga xamante ne ñoo nekk ci région leen jox matériel bu doy duñu leen jox dara da ngay dem da ngay génn booy génn dañ naan la débrouiller tey ji boo fi defee faute wala rature dañ lay dàq sans droit te tey boo fi defee loo xamante ne ñoom ànd kii neexu mooy lool ñu jàppale ñu daal laa bëgg ñu jàppale technicien jàppale te xam ne ñun tamit ay jigéen lañ ni góor ñi di demee si terrain noonu la ñuy demee ñu xamante ne liggéey liggéey rek moo am solo. merci beaucoup. santage yi fàtte ko ko. vas-y. ah d'accord par exemple nga am accident. li ci gën a metti mooy patron de presse bi moom li muy njëkk lijjanti mooy matériel matériel am lay xool fu mu toll moom balaa yow muy xool yow yow sa wérgu yaram yow moom matériel lay xool te gis nga li ci gën a métti ñëpp xam ne ni c'est le risque du métier mais li ci métti mooy xola léegi yow nu jox la sa gëdd duñ ko def booy génn yenn matériel yi ñoom seen matériel rek nee ni xool yow sa santé wala lu la dal ci mbedd bi ñoom balaa nu koo lijjanti ñoom seen matériel nee ni gën a lijjanti te loolu amul benn solo li gën a am solo ñun mën nañ suñu métier métier bi dañ koo bëgg ba pare balaa nag dara ba nañ ko mën nañ ko ñëw neen di ko def mais da ñuy jox suñu gëdd tamit parce que matériel bi lu mu sophistiqué sophistiqué ni ñi koy utiliser ñu noo ñu noo ko gën a sophistiqué nit kenn du ko booleeg matériel lii yoon mooy nu jox na suñu cër jox na suñu gëdd ndax lii métti ci terrain bi ñun nii noo koy subir ñoom seen image rek nee ni xool mais lii met ci terrain bi ak ñun li ñuy daj ci terrain bi ñun ñoo ñoo koy subir en tant jigéen te ni ñu koy subir moo tax dañoo war a jox suñu gëdd lii dañ ko yéex a def te gis nga tànk bi ñu teg maa ngi ñaan yàlla yeneen tànk ñëwaat ci kanam affaire yi nekk dox jëm ci kanam parce que tamit sonn neen lii nu koy kaasee nii dañuy bëgg ñëpp déggunu jaaree fa nag jox na suñu cër parce que lii metti metti na waaw day fay salaire yi à temps li ci gën a metti mooy da sonn bay a xamante da nga gis ci kan nga xamante ne xola dina ci am audace xola téye sa salaire ay 2 mois 3 mois boo kaasee boo kaasee mu dàq la te du ko teg fenn loolu nag ci boppam lañ bëgg mu jeex ça suffit ça suffit dafa war a jeex li ma ciy sànni mooy que tey jii ñun en tant que nit war ngaa mën a jox gëdd bi nga xamante ne ñun ñoo ko moom yelloon nañu ñu respecté ñu jox ñu gëdd bi nga xamante ne ñoo ko moom nit mënul nekk ci agence def fa 10 ans mënul am bulletin de salaire mënul am contrat nga xëy dàq ko ci ay anam yoo xam ne kenn xamul nu mu demee nga ne dañ laa rapporté que ne ñëwul loolu du yoon dañ koy ñaawlu bi ci topp nag mooy ñun jigéen ñi ñun jigéen ñi dañuy dajeeg suñu ay moromu góor maanaam damay ne sax ñun leen jàppee suñu bopp ndax ndax ñoo gën ñoo gën a doon ay jàmbaar foofu ko góor ñun ay gaynde lañu ci biir terrain bi kon dañ war a jox gëdd bi nga xamante moom la moom journaliste bu nekkee ci télé bu rafetee caméraman moo ko génnee suñu waxee mu jag ñoo ko génnee suñu waxee mu am son ñoo ko génnee kon dañ wax a jox gëdd bi nga xamante ne moom la ñu moom xeex bii nag ñëpp a xeex amul caméraman amul journaliste amul ko mu di doon képp koo ngaa jug xeex lañu ki nga xamante ne leen de xeex ba ñu sànni ay grenade loolu du yoon loolu moo ñu gën a métti tey dañuy nekk sur terrain homme de tenue yi war ñoo protéger ñoom ñoo ñuy xoxatal ñoom ñoo ñuy jaay doole te ñoom ñoo ñu war a protéger ñun seen ginnaaw la war a def moom laay wax li préfet def préfet ñu ngi ñaawlu li nga def parce que yow boo xoolee ne yow war nga taxaw ñu war laa mën a sànni grenade rek waroo taxaw di ko wax ñu sànni ko journaliste parce que ñun droit bi nga am la ñu am sérieux homme de tenue nga sol nga tenue dañ laa respecté waaye sa ginnaaw la ñuy boot ndax sa njaboot lañu soo a ñu am lu ñu métti doo ñu faj kon war nga yaa mën a fay suñu bopp bay suñu yàqulee fay su matériel yàqoo yaa koy fay ni ñu juree suñu ay doom noonu la ñu juree matériel def ko comme suñu ay doom dañ ñoo war a jox gëdd jox ñu respect ak mérite bi nga xamante ne moom nañ patron de presse yi ñu bàyyi ñi nga xamante ne ñoo ngi leen di chantage chantage bi ci biir milieu de presse bi dafa war a doy muy ci góor muy ci jigéen nekk ñu ay jigéen yu ñàkk fayda ñun dañoo nekk ay responsable yor suñu ay njaboot yor suñuy waajur war leen a taral kon bu na ñoo mën a am luñ ñu fay ci yoon ak respect jërëjëf